baas yu mucc ayib taaru lool tarafet waaye ku ci bëgg a am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05. ngir google ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono. tablette Core T4 smartphone Core x ak téléphone flottant Shark X3 ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin. yu dëgër te nangoo yàgg lool te lii ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Core X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci sambi junni sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien di yees luwaat ci loolu parce que fii ñu toll loolu nga xam ni moom la wone jàngat biñ ci jàngat rekk mooy gëm yàlla rekk a am solo wóolu yàlla rekk a am solo doyloo yàlla rekk a am solo loolu la ñu wan la mu dund lépp wéttulawul kenn ku dul yàlla moo tax yàlla defal ko lu mu mayul kenn yàlla nañ yàlla taas ci barkeem suñu taxawaay fii nag bokk ak yéen loolu la sant yàlla képp kuy jullit rekk ku fi taxaw sa njëriñ la parce que yàlla dana la boole ci yool ga ak yiw ga nga xam ni defal na ko suñu maam ñu di leen nag ndokkeel di leen félicité ci ni nga xam ni moom ngeen di ko taxawoo yéen ñi wuutu léegi seeni wayjur yu tedd yu sell yu yoroon lii ni ngeen koy defee rafet na ni ngeen koy rafet defee jekk na ni ngeen koy defee amal na askan wi njëriñ moo tax ñu ñëw pour di leen ndokkeel ci loolu mais surtout di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla matal lépp ba yéen a jéeg yaakaar gépp yàlla matal ko en tout cas bég nañu trop yow nag dañ laa féliciter comme d'habitude comme ni ma wax comme président commission d'organisation bi nekk nekk nga om orchestre boo xam ni macha allah ab édition bu ñëw rek dàq ba ca des yal na yàlla mottali loolu saxal la yaakaar ak gis gi say jur ak say kilifa am ci yow yàlla gën ko dëgëral boole ci sa commission bi yëpp ñoo ngi ànd ak nag suñu délégation bi madame le maire Soham Wardini muy maire Dakar ñoom Barthélemy ñoom euh, Moussa Tine ana sama maire ah voilà le maire de ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom Badara Baro bëgguma lim mais ñun ñëpp daal ñoo ànd rot si fii pour barkeelu si boole ci ñiy ñaan li dalal xel nag mooy waxtu wi ngeen nangoo defe ko mu am tiit njàqare ngeen wan nit ñi ni suñu wéeroo ci yàlla yàlla mën nañu lafal musal ñu ci lépp lu ñuy ragal yàlla na ko yàlla def en tout cas li ci nit ñi di ragal ak tiit yàlla bu ko ci kenn gis loolu daal moo doon solo tànk yi ziyaar ñaan ñaanlu parce que suñ la ñaanalee yàlla may la ndam ñu sàkku ñaanit ci yow pour que ku nekk ci ñun ca la nga soxla ak la ngay def nga ñaanal ñu yàlla matal ñu ko ñoo ngi lay gërëm di la sant Mbàkke asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi delloo ak mboolem délégation bi nga àndal bépp di leen nuyu baax a baax di leen gërëm ci ñëw bi ngeen fi ñëw tey te yàgg koo def di ko rafetlu bu baax a baax itam ndax xam nañ kóllëre gi nga xam ne am nga ko ci dëkk bi te di ko sàmm bu baax a kon ñu ngi koy rafetlu bu baax ndax loo daa def la yàlla def rëñ bi nga defaat ko di fetli tam bu baax suñu diggante yow ndax xam nañ set sag cofeel ci ñun xam sag jàpp xam nañ sag baax te loolu dara ëpp ko solo ci doomu aadama te ñu ngi àndal ñëpp itam loolu lañ lay seeral kon nag ñu ngi fet li diggante bu baax baax ndax kóllëre alxuraan dafa wax ne wa awfu bil ahdi sàmm kóllëre ndax kóllëre dañ koy sàmm Sëriñ Tuubaa rek daa jàngale woon ni ñuy jàppee kóllëre dafa waxoon ni may jàppee kóllëre mooy bu jàppee ma jàpp bu bàyyee ma jàpp loolu rek mooy li am solo ci diggante ndax ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd te yàlla tax waaye waruñoo ànd ngir àdduna waruñoo ànd ngir jamono ndax Sëriñ Tuubaa daan wax ne bépp ànd boo xam ne yàlla rek a tax mujj ga alhamdulilah moo ci mujj waaye bépp kullu suhba bi xeyrillaahi nag bépp ànd boo xam yàlla taxut axiruhu inna lillahi moo ci mujj moo tax daa wax ne ñaar buñ dee ànd nañ ànd te yàlla tax ndax bu fekkee dañuy ànd te àdduna tax nee na kenn kay ndax moroom ja te bu jëkk ca des yeewu ànd ba jeex kon li am solo mooy ñëpp ñu ànd rek nañ ànd te yàlla tax kon nag lay sant bu baax di sant ñi ngi àndal ñëpp te kenn ku ci ne itam di wóllëre ñu xam coom bu baax ñu ko tàmbalee ci maire soo xam war di ñi nga xam ne mën naa ne ci dëkk bi la dëkk ndax taalibe la te am na fi sax kër ci biir dëkk bi kon moo mbokkam yi mu ko seqal di nuyu Badara Baro mi nga xam ne moom itam li mu fi ñëpp xam nañ ko di nuyu Barthélémy Dias mi nga xam ne sa digg moom ñëpp xam nañ ko ba ci Moussa Tine mi xam ne moom sama kilifa suñu si xaritu benn bokk na fa ak mbooloo ñu ci des ñëpp daal ku ma ci tudd itam bu ma la tuddee rek yóbbaale na ñëpp di sant bu baax di gërëm. ndax nit ku baax loo ko mos a defal ci lu baax rek waru ko fàtte te bi mu fi nekkee itam lu baax li ngi daaj jëflante ñun fàttewuñ ko te ko fàtte kon ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom mi taxaw di ko def ak Serigne Touba yàlla la fayal ko ñu ngi sàmm diggante boobu bu baax di ko jàpp di ko yeesal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bamba a waa géej ah yi ku nekk xam ne ni màggal tubaa gi lii dafa dajeek nawet bi